ngir mbëggeel bu rëy la ñu nemmeeku seen diggante lu koy firndeel nag bokk na si rek geste bi ñu def ca diwaanu Saint-Louis bu loolu yembe daa si toftal rek tàggat yaram ak kàddu yu coach gaynde yi yëkkati si lu a ballon d'or bi bu ngeen taaxirloo léegi-léegi ma yaatal ko gannaaw bañ leen nuyoo ba noppi am internetu Dakar Buzz actu du jour dañ koy dooree ñaari tuut tànk ya ñu ren di woon ca diwaanu Touba si guddi ba 26 septembre la xewee woon police nag mi ngi doon wéyandi enquête bi ba tey bu ñu sukkandikoo sax si les échos waajur bu góor ñaari tuut tànk yooyee di Bara Touré mooy suspect bu njëkk bi gannaaw ba ñu ko joxañee rek baaraamu tuuma ne moo faat ñaari doomam yooyu di Serigne Mbacké Madina Touré ak Mame Daouda Touré soupçon yi nag mi ngi tàmbali depuis ba ñu gisee rek ab paaka bu ak rip ak deret fu soriwul dara seen kër googee si fàttali yi xale yooyu nga xam ni seen at si quatre ans ak deux ans la toll kenn ki nag doomu aawa bi la keneen ki di doomu ñaareel bi dañu leen rek fekkoon ñu rendi leen seen biir néeg ba loolu weesoo sax seen waajur bu góor boobee sax di Baara Touré mu ngi doon jéem rek xaru di bëgg a tàggale lii di boppam ak baatam ñu jubali ca diwaanu Fissel addu si musiba bu fa am benn féticheur bu nekkee ca boobule village moo dal faatee boppam par pendaison moom moomee nag nga xam ne ay atam ñu ngi tolloon si 40 ans amoon na soxna ba am doom yu bëri ba loolu amee nag ba noppi la ñu jël rek néewam ba daal di koy yóbbu ca hôpitalu Grand Bourg lu waral mu def li ni mel xamaguñ ko ba fu ñuy waxee ak yéen ñi. procureur yi Mariam Tandian lay wuyoo moom nag nga xam ni dëkkul benn place da doon rek mu booboo soxna procureur de la République Serigne Bassirou Gueye ak tamit avocate du barreau de Dakar ngir rek di escroquer ñuy jaay en ligne moom nag di célibataire waaye am ñetti doom daal dinañ koy démasquer ba noppi yóbbu ko ca diwaanu police ngir escroquerie waaye tamit usurpation d'identité numérique si noonee nag dina risquer six mois de prison ferme. Alioune Ndoye di maire bu Dakar Plateau waaye tamit ministre de la pêche et de l'économie maritime moo fekk rek ñu daal di koy tegal ay gàllaaj si buntu këram si noone rek la daal di def révélation si page yu ko bëgg rek yàkkati si mystiquement. njiitu réew mi Macky Sall dina def communication fin d'année suba mardi 31 décembre à partir de 21 heures si boobule discours nag njiitu réew mi dina si formuler ay vœux pour concitoyens yi waaye tamit wax si grande question actualité yi ren nag du doon simple discours 20 minutes waaye 80 minutes lay doon ndaxte daa prévoir rek janook ak taskatu xibaar yi waaye nag daa tànn rek ñamuy janool nga xam ne rek Pape Alé Niang Babacar Fall Antoine Diouf ak kii di Moustapha Diop. leneen Moustapha Cissé Lo nay dinay xamle rek ni bàyyi na lii di politique ak lépp rek lu làmboo si boobule mbir gannaaw rek ba mu doone ab conseil bu jógee ko si xalif général de Mourides Serigne Mountakha Mbacké loolee rek moo tax ba siselo Lo daal di décider defee ko comme num ko digalee moomu Serigne Mountakha Mbacké. Amadou Ba daa leeral sénégalais yi engagement wam ak njiitu réew mi Macky Sall si noonu rek ab vidéo une minute et quelques di si indi ay leeral moom nag la mu xamle moo di ministre des affaires étrangères wax na rek si politique ak lépp laata muy xamle moom Mame Gor Diazaka ne rek coow li yëpp si APR lay jógee laata muy ñaan Macky Sall ngir mu jàppale rek kii di ministre bi nga xam ne rek deful lu dul dox si lu koy jëmale kanam si noonee mu leeral ba tey moom maam Gor ni ñu bëgg a wuutu njiitu réew mi rek ñooy faral di créer yi les kaddu di naan rek Ba mooy financé Sonko te loolu yëpp dara amu ci. leneen chabi de la série Pod et Marichou daal dinay changé look complètement ak ay sañse à couper le souffle lu koy firnde nag bokk na ci sax boobule photo di défilé ci écran bi. Léna Gueye mi ngi wéyandi moom it di animé débat yi ci réseaux sociaux yi à travers photo yu muy faral di publier di ci exposé rek boppam comme nu ngeen ko gisee noonu. ba tey si lu ñeel euh, people ñëpp dégg nañ rek turub Asi si célèbre série bii di un café avec ak acteurs yu bëri nag kenn gisatu leen depuis njeextalu saison 3 bi waaye nag daal dinañuy gisaat Asi la charmante femme bu doon jouer rôle d'espion pour arnaquer rek kii di Baxa Yoxo si ba muy ubbi rek showroom bu bees moom femme d'affaires boobee nag di Asi dañu ko gis rek ak coppite bu rëy si si yaramam gannaaw ba mu jëlee poids bu bëri lool si temps yi nga xam ne nii rek kenn gisatu ko woon. ñu recruté ko bu yàggul ca télévision Futurs média tax ba muy préparé du lourd moom yaa awa euh, pour rekk ñii di téléspectateurs yi si noonu mu daal di fay jël sax ay photos yu njëkk nga xam ne sax euh, bokk na si photo boobu si écran bi. comme nu ma leen ko junjee si ndoxteel bi mbëggeel bu rëy la ñu nemmeeku si diggante yi Youssouma Jigéen Ndour ak employé bi di Abba No Stress lu koy nak nag bokk na si rek show bu roi du mbalax bi doon amal ca Saint-Louis ak petit accrochage eh, bi mu am ak kii di Abba No Stress ñu dal di si ne want rek maanaam dal di kaf foore si kaw seen bi leneen incendie bu métti moo am dimanche ca Thiès plus précisément quartier Ngent safara soosé nag doon takkee si benn kër daa fekk rek benn xale bu góor coincé si benn néeg moo du joppale yu yoo nekkoon élève si CEM bu Ngent ay atam tolloon si 15 ans si noonu rek la ñàkk bakkanam si biir safara si si anam bu métti lool lu waral nag boobule takk-takk kenn xamagu ko ba jamono ji tàggat yaram sélectionneur gaynde yi Aliou Cissé daa dinay indiqué rek si benn entretien quotidien mu doon accordé quotidien bi di record ni titre de meilleur joueur africain wu at mille atub 2019 bi Sadio Mané la war a nekk bu lépp tegoo rek si yoon laata mu yokk si ay kaddoom rek ni mënul imaginer beneen jour bu ko mën a gagné bu wutoo rek ak kii di Sadio Mané Euh, tëjee kook euh, franco sénégalais bi di Patrick Vieira mi ngi woon rek tey si altine gi ca RFI gànnaaw ba mu doon invité Afrique si seen émission bu ñu fay amal si noonee mu daal di si xamle rek ni àndul benn yoon si classement Sadio Mané si lu ñeel ballon door gi gànnaaw ba mu jugé loolee rek injuste si noonee muy xamle rek ni Sadio Mané mérité woon na lu ëpp loolu ba mu ca noppee ba tey moom Patrick Vieira la daal di addu rek si mbirum taalibe yi di ni dañoo war jàppale rek